installé euh, Malick président Malick Gakou ma ñëw ci Ahmed Aïdara qui est un collègue un confrère avant d'être l'homme qu'il est aujourd'hui donc je pense que dafa am ñaari cër ci na mooy déjà collègue boo xam ne ci wàllum journalisme la mais aussi koo fréquenté en tant que homme politique lu mel ni dal ci kawam mu nekk sa nit ñëpp xam ko naka nga ko dundee Ahmed Aïdara waaw ma maa ngi lay nuyu bu baax bu baax a baax a baax euh, masawu Sénégal masawu waa 7TV masawu tamit euh, tous les confrères ak consoeurs mm-hmm. en tout cas Maimouna man li ma liyee ak moom comme li président wax léegi nii 2011. Euh, mhm. dama nekkoon ci benn groupe de presse jóge fa war a demaat ci beneen groupe de presse diggante boobu mooy chômé. Mhm. fu ma toog ci rajo yi ne ñetti doomu aadama ñoo nekk fii Sénégal fu ma dem delloo leen tukkal. parce que ñetti nit ñooñu ñoom ñoo ma doon soutenir en tant que ay collègues. ci situation bu métti. ci situation bu métti. moom mooy mën a Ndour Faye Cheikh Mbacké Guissé ak Cheikh Omar Ndaw. c'est. Cheikh Omar Ndaw il était là il y a quelques minutes. du man xam nga xam nga man kenn du ma tànnal sama xarit. Mhm. man kenn du ma tànnal sama xarit kenn du ma imposer loo xam ne man mënuma ko. Mhm. lii dal ko nii tey man bi may ñëw laa ko yëg ci fajar bi doon dem à la mhm. naqarlu ko ba masawu leen masawu njabootam masawu ñëpp. Mhm. li ma wax tey suba gi rek. gis nga ligne éditoriale groupe bu nekk ak sa ligne éditoriale. c'est vrai. mais tey nga tey nga waxee nii. wax li ma neex par la force non non ah affaire man de musuma ko dund. Mhm. chaque jour moo ko ne waa kër Ablaye Wade bi ñu fi nekkee. ñooñu daanaka dañ ma jàppee woon seen noonu. Mhm. ñu demee ba daanu waa kër mag yi ma daan tagg. <laughs> ñooñu ma may xas bu duñ toll nii. ñee léegi nekk sama xarit. pour wax la rek position wu lay politique la. man nag. maa ngi koy massawu jërëjëf coalition bi ma bokk tamit di ko massawu di mm-hmm. coalition gàkku 2024 mm-hmm. vraiment daal tey am na ñu ñu naxari jërëjëf ah man boog personnellement merci beaucoup di la sant bu baax a baax c'était un plaisir pour ñu di la recevoir